الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخير ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة يوقنون وأولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق مولانا رسول مصطفاه الصادق الامين واصدق القائلين والمصدقين ونور صادق المسهدين وفيهم هم المصدقون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ورجل عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والسحدي والسحيد وعبد الرحمن المغفور وابو غابر الجراح والحمزة والحباس وجعفر وعقيل فأسلم الحزن وفاطمة وخديجة وعنزة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل قرآنا عظيم فابنا قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا وقبورنا وسر به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه غداة لنا الأمجاد قوام عظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجهل قلبنا سائقنا إلى النهار الأمجاد قوام عظيم سامعا مستمعا فينا ولا تجهل مائلا مصدقا فينا الأمجاد لنا ولا تجهل علينا على أهزونا تلاوة على النحل الذي يبدي فلا تجهلنا ذنبا إلى غفرتا ولا إلى فرجتا ولا دينا الى قضيتا ولا مريضا الى شفيته ولا عدوا الى كفيتا ولا قائبا الى ردته ولا حسيا الى حزنتا ولا فاسدا الى غلسته ولا ميتا الى غيمتا ولا عائبا الى صدتا ولا عزا الى يزته ولا حاجة من أرواح الدنيا والحاقية لتبيع غدا ولنا فيها صلاحا إلى عظم على قدرها فيه سر منك وما في إنك على كل شيء قدير وبالحجابة الجديد يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بقرآن حسين وانفعنا بما فيه من غايات وسكن حكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وسكننا من أمان زينا وارزقنا تلاوته وآناء وأنا عليه وأطراف النار التقى مرضاته اللهم قد علم علينا قضايا فاجعلنا قبة رصدنا ربنا آتنا من دنك رميت رحلنا من أمنا رصدنا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 فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوبنا مع ابراهيم ربنا واتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخزي ميعادنا ربنا اسلمنا انفسنا ولن تغفرنا وارحمنا ان كنا من القاصرين ربنا ارنا في اسفارنا وسويتنا قوه وحيون واجعلنا للمتقين مامانا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا أهل قلوبنا خلا الذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم يا ربنا يا قادر الظالمين وبيننا وبين كل سالمين يا ربنا نكرم ما قد جرى فصل بقيد علينا جزرا يا ربنا هجل لنا الفرج ونجنا من بياتنا الرجو وامدم علينا من وعدا أمنا عن سواد قام الذي يمنعنا اللهم ارزقنا بحلك الذي لا تنهم وقمنا بكنك الذي لا يرام وجعلنا بجوارك الذي لا يقوم لا يدام اللهم نذبك من أعدائهم ونعوذ بك من سوءهم اللهم اكفنا من معصيته اللهم اكفنا من معصيته اللهم اكفنا من معصيته اللهم انك عالم بأعدائنا وكبابئ والكبابئ النسران اللهم اغفر حينا والمهدنا وكبرنا وسقينا وسكرنا وانزانا واجرنا وقعدنا وغنا وعبدنا وطعنا وعزنا اللهم اغفر لنا اجمعين وطوبنا مسلمنا وانزل سموتنا نبينا والصديقين والزهداء والسالينا وقمنا ما حملنا وعلى فيتنا من امر الدنيا والدين وقضانا هدي موحدنا ولا تجعلنا فتنة لقوم ظالمنا ونجنا برحمة من قوم كافرنا واجعلنا من بعدك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما له قادم كما صدق الناس الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر من قدر العظيم سبحان ربنا رب ما عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم mbokk yi comme ni ngeen ko déggee xatmu bi nga xam ne moom la paalib bii doon def di daam jaam te sëriñ bi jox ko shahada bi nga xam ne mooy wane ne déglu nañ ko déglu bu sell sëriñ bi ñaanal na ko ñaanal na mbooloom yëpp ci darajee alquran na xatmu bii mu def yal na yàlla faj mboolem aajo yi wéeral yaram yi dëgëral pas-pas sëñ bi nag eh, dafa xaw a xat waaye nii lañ bëgg a tëralee programme bi ci sa ndigal ñu ngi koy ñaan nga jox ñu ci ndigal mooy ne danañ jox suñ mbokk alaaji jim saw mooy Mouhamed Saw bi nga xam ne mooy mun na seq xafla bi yàlla am ci taxawaay bu rëy moo kiy bokkam ki dëkkandooram mu joxe benn kalima yaakaar naa dana ci présenté présenté waale délégation yi ñëw waaye dana ci dugalaale itam ki nga xam ne tey mooy xalifa Cheikh Malick Sow muy Baram Sow kàddu ngërmaale yi mu joxe ak ay cantam ci dëkk bi ak bokk yeeg dëkkandoor yi dana ko dugalaale ci biir kalima comme nag dafa xat eh, dañ ñu may rek gannaaw bi ñu la ko ñaanee ñu jox représentant maire bi moom ndax dañoo defoon délégation seeti ko muy yebal benn délégation danañ leen jox kàddu ci turu maire bi leen yebal bu paree ki nga xam ne moom lañ préfet moom it ñëw na kon moom la ñuy njëkk jox wala moom la ñuy bu maire waxee moom mooy wax ndax mooy kilifa gu mag bi bu paree nag ñu jox Cheikh Abdou Salam mi nga xam ne bokk na ci ñi dara jaale bis bi buñ paree nag nopp yëpp ak xol yi nag ñu ubbi ko taataan ko jox la ngir yóbbal bi nga xam ne moom nga ñuy indiwaaleel ñu yóbbuloo ko muy njëriñ loo xam ne dañ ko jëriñoo ci suñ diine ak suñu àdduna kon bu boobaa nopp yëpp bu boobaa yow la ñuy déglu sëriñ ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la ci tawfiix ba yi nga xam ne mooy nopp yi ubbeeku xol yi ubbeeku fees dell ak njariñ te gëm naa ne loolu loolay am kon noonu lañ bëgg a tëralee programme mbokk yi xaasatan sëriñ bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah di leen tatagal ci bés bu tedd bu mag bi nga xam ne moom ñu dajale nga xam ne ñun ñëpp li ci doon suñu yéene mooy jàng alxuraan ji nga xam ne mooy téeréeb yàlla bi ñu jox tañ war di ko jàng waaye ñu yéene waale ci suñuy waajur yi nga xam ne lépp luñ xam ci alxuraan ñoom ñoo sonn góor góorlu xamal ñu ko teg ñu ci yoon wa ñu jàpp ci ba bés ñi ki tey ñu ne ñooñu bon xeewuñu rek ñu toog fàtte leen duñ leen fàtte ko déedéet war nañu am bés boo xam ne danañu dellu siyaat dajale njaboot gi yëpp njukkal mag ñooñu nga xam ne ñoo ñu meññ te yar ñu te ñu ci yoon woowul loolu moo waral euh, jotaay bi waaye nag bala maa sori jotaay boo xam ne doomu cheikh al islam alxaaji ibrahima ñas daf caa toog xaasatan nag koo xam ne ci xaasi xaasi ci biir njaboot bi ci la bokk ñu cheikh mamadul maahi ndax tey li yàlla dogal ci coobare mooy pay bi yëpp tey papa cheikh mooy seen kilifa ndax moom mag ci njaboot ak baay gi te moo ci raw ci lépp tamit waaye boo ne papa Cheikh rek am kenn koo ci mën a teg ku mooy papa Mahi papa Mahi moom moom moo toog nii ngeen jàkkaarle moom kon jërëjëfe Baye Niass lu rëy lañ am ngi ne lu màgg loo xam ne man xam naa ay goxe ci dëkk yoo xam ne fu sori ci bitim réew dem naa ci dëkk yu fasantikoo ci Afrique yoo xam ne man mu ñàkk fayda mi kenn xamut sax damay ñëw rek ñu am nuñ defee nu rëy rëy rek bu gën a rëy bii ñu tert rawatina nag léegi su fekkee kon ki nga xam ne mooy jëmmi mbir mi moo teew te ñun loolu la ñu may kon nañ sant nañ wax jërëjëfe Baye Niass gannaaw bu ñu waxee jërëjëfe Baye Niass nag bala ñuy avancé damaa bëgg sant ñaar la sant ci wax ak sant ci jëf sant ci wax moom pare nañ ci wax nañ jërëjëfe Baye Niass mu des sant ci jëf haddiyee Baye Niass na ñëw naa la góor gi Cheikh maa yi doom yi bàyyi la bunda faydo xeyalla teccu faydo zaydikli cheikh mahindo tellayla wayanna yalla fayla tamayla fam ak yero cheikh mahindo tellayla la ilaha illa allah moom la ngay dundee faydi cheikh mahindo gërëm nañ la waajine zakkal

جی چھ جی، بر کے بالو ہاری ایا ہی ڈنڈ جانی یا روتا کھولو جانی اے کے پھو کو بھی ڈنڈ تو چھ کے جی ما جنگے کان دے شرما ہی مم مم بسل اچھا بد میں تھی جی نور دلنا بھی رن گیل نا ہے دور رن سی گور گی لا الہ الا اللہ اے دل تو تو یا اللہ مونتی اللہ لے کا دو شرما ہی انو دائرہ لا الہ الا اللہ اے دل tudu yalla ulti yalla le kadu ay mari inno bayra ay la illallah ay dale tudu yalla ulti yalla le kadu ay inno bayra waaw gannaaw bu ñu sante yàlla ci ñaari anami sant yëpp muy sant yàlla xawlan wa fi'lan yal na yàlla gërëmal ñu gan gi ndollal la gu rëy ci gox bi rawatina ci dëkk bi muy Cheikh al Mahi nga xam ne kenn ci ñun du ko présenté sa morom ñun ñëpp ñoo ko xamandoor mooy ko xam ne dara taxu koo jóg lu may rek avancé ak réer Cheikh Mahi fu mu waxtaanee représenté fa képp koy wax ci diina doo xam ne mukk ne kii ñeseen la wala fii la bokk déedéet li ngay centre rek mooy kii l'islam rek moo ko tax a jóg diina rek lay défendre te loolu la doon ne nag ci kin fi toogal tey muy Cheikh al di woy juróom léegi nag gannaaw buñ ko nuyoo ziyaara ko buggoon koo sant sax waaye xam nañ ne lott nañ ci sant ko gërëm ko waaye daal ñu dawal ci rek suñu yéene gannaaw bi ñu génnee ci loolu ñu lay wax sëriñ bi ne bés bi bés bu màgg la muy bésu seen taalibe di Tafsir Malick Sow mi nga xam ne yàlla def na ci coobere mu bokk ci ñi nga xam ne àndoon nañu Cheikh al la Mawlana Alhaaji Ibrahima Niass mu liggéeyal ko jox ko dundam gi yëpp Baye Niass gërëm ko wax ko ñëpp dégg ko mu seede ko tamit euh, ñëpp fekkee ko mu bind ko tamit bàyyi ko fa ñëpp di ko jàng ilaa yawmina haza kooku mooy tafsir Maalik Sow nga xam ne wax dëgg yàlla ñaare ñi ñëwaan daan ziyaare daan nañ bëgg sax ku leen waxtaanal tuuti ci ki leen tax a jóg waaye nag comme dañu am jotaay boo xam ne doomu Baay Ñas da ca ñëw teew ca moo tax ñu ne foofa ñun amatuñ dara lu muñ fay wax lu mooy rek wan sëriñ bi suñuy gan won sëriñ bi tamit ki ñi nga xam ne ñooy suñu dëkkandoor ak ni ñu taxawee ci bees bi su loolu yëpp pare nag su ci amee kilifa yoo xam ne dañoo am ay kàddu yu ñu war a sànni ñoom ñu joxe ko su loolu paree ànd ak loolu yëpp nag ñu ngi ñaan ndax dëgg yàlla ku ñun ñëpp xam na ni sëriñ bi mag la te tamit programme yu bëri na ndax démb barki démb daanaka chaque jour rek lii ci lay nekk guddi ak bëccëg su ko defee ñu koy jéggalu ci jotaa bi ni mu nar a yàggee si nii waaye nag maa ngi ñaan daal képp koo xam ne kàddu gi dox na ba egg si ci yow noo ko gën a mën a tënkee rek nga defee ko noonu bokk na ci ñi nga xam ne ñu la koy présenté mooy ki nga xam ne tey mooy mm, suñu wéyjur di Barham Sow di ki nga xam ne tey moo toog sol ne leen mbaxan mu xonq ma moom la ñuy xoolee tey tafsir maliso ndax moom la fi desee ci doom bu góor yàlla na fi yàgg te wér lool mu tuddee woon ko sëriñam ba Baye Niass di Barhama Niass mus na maa nettalil ne ma mag ñi gisuma ñenn ñu mel na ñoom mu ne su ma bàyyi bu daan dem Medina di ziyaara ji day yóbbu di yóbbu ba nga yaakaar ne daal moom dafa bàyyut xel pour ñibbisiwaat Guinée Waalo waaye ànd ak loolu yëpp day dem ba Médina muy bind ay leetar yóbbante leen ma nangam yónneel ma nangam nee na ma man mii yore naa ay xaram yoo xam ne dama koo dencoon mu bindi leetar ne na ma xar yi fekk Médina mu jiitalee xar yi Guinée gi ba Médina Baye ngir mbëggeel gu rëy rek ci Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass Baye wax na ci liñ ko seedeel ne jëmma ngeen ji yoo xam ne bu doo doon ak sama jëmm ak ut sama ngërmande dana bàyyi ci alal loo xam toll ni sax mënuñ koo jeexal waaye nag fayee naa ko ne moom képp ku xool tàddam bii ñu ko tegee sa yaram xaraam na safara waxuma loolu waaye moom baax na ba nga xam ne dana mujj sax nekk di aji ramu ba képp kuñ denc ci dëkk bii di gën Guinée-Waalo sa yaram xaram na safara loolu képp koo xam ne mag la moo xam ne romb ko juróom ñaar juróom-ñaar fukki at loolu dugg na ci sa nopp réew mi yëpp xam nañ loolu du loolu du sama wax bon lu wér la Euh, waaye nag waxi cheikhul islam dafa xaw uute waxi ñu bëree bëree bëri ndax képp kuñ fi denc mu sa yaram xaraam na safara xam nga keneen mën na koo topp ndor wax lu mel noonu waaye kay ma jox la nag ne waxi cheikhul islam bokkut ak benn wax moo dina ne dañoo dem ci jamono gannaaw bi ñu ko fi dencee lu romb ñaar fukki at ñu ne ci jamonoy tubaab bi ndax jamono yooyu ñoom ñoo fi nekk ñu ne dañuy jubbanti yoon wi dañuy defar tali xàll yoon bi bi ñu ñëwee ba romb njaago bi ñu léngaroo dañ faa gis koo xam ne dañ ko faa denc terkaal biñ ko sàngi sax dara soppeekut fi ñu ñëw ci dëkk bi ne dañuy ñaan ne kii ñu denc fii te dara soppeekul ci moom dañuy ñaan xëy na démb ak bërki démb lañ ko fi def milliards dañ leen di ñaan pour ñu tuxal ko denc ko feneen ndax fi mu nekk nii fi la tali bi jubee ñu xamal leen ne kooka am na fi lu man ñaar fukki at kon su bàyyi waxee ne kii war naa mën a ramu te moom ci boppam sax ñemewul koo jege dara ñemewul koo laal kon loolu ñëpp war nañ koo gëm jërëjëfe Baye Niass kon ci gàttal ma wax ne Baye Niass fonkaloon ko boppam ba di ko ci ay mbiri boppam ba am na foo xam ne sax maa ci teg sama bët mbindam baay la mu ko fala budda an tadoo laaha lii tay siiral matlo benn soxla bu nga ko ne ko am mënta ñàkk na yow tafsir maali sow nga ñaanal ma ci ay mbir yoo xam bëgg ci ak ila axiri maa qaala moolana cheikh islam radiallahu anhu waaye amat benn bés boo xam ne dafa too rek moom Baye Niass sëriñ bi maa ngi jégalu mu bind wax Baye ne Mawlana Tafsir Maalik ne ko dama laa bindoon lettre bii di la nuyu di def wa tafaqudan lil ahwali wa mubashiran laka bi annaka min qaasati qaasati ahbabina wa satajidu nafa fi zalika fi daarayni bi fadlillahi wa awnihi bila maynin fa anta minna ونحن منك أنت وكل من تعلق بك محل النظرة وسلام إبراهيم ابن هاجي عبد الله تبام كوي كي تامي تشلي جاسامبا دفنا أزمت وأجس لأقي في الله وفي رسولي وفي الشيخ والحبيب المرتضى Euh, wax ba ne tafsir Malick Sow ba mu demee ba weer euh, euh, lettre bi di jeex mu ne wal waladul maskur Malick bun Habibullahi Sow ammanahu llahu wa kataba Ibrahim ibnu Abdullahi muarrifan bihi wa salaamu aleykum ila rasail yu bëree bëree bëree bëri loolu yëpp nag liñ ci bëgg a wax rek mooy kenn la ci ñi nga xam ne làq nañ ngërmande Mawlana Cheikh Islam képp koo xam ne nag làq na ngërmande Cheikh Islam mérito na ñu fasal ko jotaay bi maa ngi gis boo xam ne nii bu siw la miy wax ci xaqi Cheikh Ahmad Thiam nga xam ne baxrum laa saahil loo moom it kenn la ci doom doomi Ginewaalo ak Seydi Ahmad Thiam ba mu waxee ba muy wax ne ñooñu dañ leen a war a bëgg dañ leen a war a ziyaara ku nekk da ngaa moytu di jéem wàññi ci seen daraja ndax kat ñoom dañ loo nekk muxtaramina la daa jamiil xadaraat ci mboolem pays yi rek dañ leen faa ormal ñëpp leen xam muy tafsir Malick Sow mu ne ba mu waxee ci Cheikh ma Thiam mu ne wa malik Sow kazalika harfan bi harfin kooku mooy ki nga xam ne moo ñu dajale fii kon sëriñ bi loolu rek mooy la gàtt li nga xam ne su ma bàyyi Barham Sow mi la ko waroon a wax moo ma sant ma wax ko ci làmmiñam bu loolu jàllee ma lay wax ne ñëpp bàyyi nañ seen ittee ma lay wax ne borom dëkk bi mu ngi nii di bàyyi kewaat bi tey moo dalal ñëpp waaye tamit préfet ñëw na teew bi ñu ko ko waxee ndax yéen tamit yeneen suñ kilifa ci diine waaye ci wàllu àddina ci doxalinu àddina ñoom tamit ñoo ci suñ kilifa bi lii xewee bañ la ko waxee yow ba pare ci yow rek dañoo sol suñu daal dem ci ñoom monsieur le euh, sous jox ñu kàddoom war ñu ne incha allah su bés ba subaak léegi rek oo nañ ñu lu bëree bëri di ñu laaj fu ngeen toll ci programme bi kon sous ñëw na monsieur le maire tamit bi ma demee recevoir nañu tatagal ñu dadal ñu wax ñu ne bés bi suñ suñ bés la ñun subaak léegi musale maire woo na ma lu ëpp juróomi yoon ci téléphone di ma laaj ne ma sëriñ bi fan la toll pour loolu yëpp di la wax rek ne ñooñu ñu yittewooñ sa njaboot gii lañ di njaboot tafsir Maalik di njaboot a Gine Waal di njaboot a gox gi te yaakaar naa ne miin nga seeni i kanam ci jotaay yu bëree bari loolu ñu la koy di la wax tamit nag sa taalibe Euh, di suñu xarit Cheikh Abdou salaam di waa joo xam ne fii la dëkkam ñun ci gox bi dara du yiteem lu may liggéeyal diin lislaam islam liggéeyal xam-xam waaye di ko jaari na ci buntab Cheikh al islam alhaaji Ibrahima Abdou salaam guddim ak bëccëm lépp dafa ko jébbal bàyyi moo tax ba famille bi toogee ñu ne gis nañ de moo xew ci jamono surtout ñu koy gis ci suñu kilifa ci pee ba Medina baay te gis nañ ci ay natija ndax dafay yokk mbëggeel gis nañ fa sax ñu tuddee maam Khalifa ak alaaji Mout Zeynabu euh, ak ñeneen ak ñeneen ci kàngam yi ñu tuddee leen ay bés seen i njaboot teew muy loo xam ne lu rafet la ñu ne kon tamit ñu nit danañ roy loolu Abdou Salaam comme dafa nekk suñ dëkkandoor nekk nit ku baax jeex tàkk ci Mawlana Cheikh al Islam te yaakaar naa kenn du la présenté Cheikh Abdou Salaam ñu ne Abdou Salaam kon moom lañ dara jaale bés bi kooku Cheikh sëñ bi ñu la koy présenté incha allah dana am kàddu gu gàtt rek moom tamit mu tënk ko ndax wax dëgg yàlla buggu ñoon sëriñ bi teew ñu wax wax ju xaw a guddee nii am na keneen koo xam ne tamit doom la ci tafsir Mali Sow muy suñ baay baay Amadou Sow di nit ku sell nit baax koo xam ne dundam yëpp daf soppandiku ci liggéeyal diina liggéeyal tariqa bi liggéeyal faydu kenn mësul koo man ci ak taalibe ba muy wér di man wasifa kenn mënu koo ci lépp lu baax loo xam ne pee bi mu ngi koy woote Baye Amadou Sow ci ñi ci jiitu ci la bokk dem na Medina ay yooni yoon lépp lu ñu daan dem tamit même bi muy tëdd ci lalu feebar maa mas a gis loo xam ne ñu jàpp ziyaara kër Cheikh Alhaaji Barham ñaas waaye boobu feebar mi métti lool ba waxuñ ko ko ba mu ko yëgee rek mu oolu ma ne ma ah da di tegal ziyaara ba te waxu leen ma ko ma ne ko yow de dañ laa yërëm ci coono bi mu ne waaw denc ma dërëm de waaye mbuus ak suukar gëlee maa ko moom demal nga dugal ko ci mbir mi xam nga ne kooku joxe na léppam bi kulli ixtisaarin kooku mooy Baye Amadou Sow njabootam gi tam mu yar leen ci diina ak tariqa bañ ko defee ñoom tamit fu ñu mënta nekk ci goxi Sénégal ñëpp dagg nañ si nité pour teew ci bés bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo séq bés bi la wax euh, euh, gi nga xam ne ñoo nekk Gambie ndax boo demee Gambie da nga fa fekk dëkk bu mag bu ñuy wax Fass Thiamène ñu tuddee ko Fass Cheikh waaye njaboot ga fa nekk bu mag dëkk la boo ne boo fa taxawee yaa ngi seen dëkk ba yaay jàmmi nekkoon mu fonkoon loolu lool na ko sax ne li tax mu fonk leen mooy ne dañoo nangoo liggéey te dañoo jub te mosu ñoo lu bon la loolu dëkk booba nag ña fa nekk ñëpp njaboot tafsir Malick Sow jël nañ seen i jël nañ seen lépp ñëw bokk ñun bés bi léegi nag képp ku ñu tuddut ñu ngi lay jéggalu ndax dafa bokk ci yar ak teggeen ki nga xam ne moom rek moo mën a joxe njariñ nga am ko mu toog ci sa kanam nga wax a wax ba lim bëggoon a wax sax xëy na ci ni ma ko mën a waxee dootu ko mën a wax loolu yaakaar naa bokk ci yar ak teggeen kon nag pour ñu économie suñ temps bi moo tax rek ma bëggoon na tënk fii di la wax ne lépp lu wër Guinée Waalo teew nañ fi li leen tax a teew mooy jëmm jooju nga xam ne moom lañuy ñuy fàttali yow nag ñu waxoon la ne la bëggoon nañ daal nga gën ñoo oh, leeralal kàndoo ci yàlla ay njëriñam ndax dañ nekk ci jamono joo xam ne bu la yàlla dimbalul nga am kilifa muxta ñi nga xam ne dañuy fëkk nit ñi te bari lool ci àddina bi mën nañ laa fëkk ba tardé la ndax léeg-léeg nga dégg nit koo xam ne boo ne sëriñ sax mu ne nangam loo wax rek mu ne bidaa leen di gis ñu ngi weeru ñu ngi am jafe-jafe ñu ngi dem di wax waxeet lépp ñu ngi koy def ndax ñoo fi doon wax ne gàmmu bidaa la mujj gi ñu ne gàmmu baax na kon wax dëgg yàlla ñun suñ sëriñ yi nga xam ne ñoom bañ déparé rek lañ ne dara gënul gàmmu nekk ci gàmmu ñu doon di gàmmu mujj ñëw ànd ak ñoom di gàmmu kon jërëjëfe suñ sëriñ si jërëjëfe Baye Niass radiyallahu anhu kon ma bëgg a wax nag nañ ci lii Vas-y, nak comme niñ ko waxé won, ngeen baal ma képp kuñ jox kaddu, dañoo bëgg nga tënk ko, bëgguñ lépp yaatu. cheikh abdousalam ubbi nañ jotaay bi ndax xale bi doon tari mo defaale xam ngu beeg lépp incha allah wàllu googu pare na dañoo bëggoon nag euh, ñu départ ci kenn ci njabootu Baye Amadou Sow mu joxe kàddum su paree cheikh abdousalam joxe kàddum bu paree ñu dem ci Euh, monsieur le maire ba pare ñu dem ci sous-préfet buñ paree ci sous-préfet dañuy dem ci sëriñ bi direct ñu ngi jégg loolu ñëpp nag nañ jéem a gàttal asalaamaaleykum ñu ne dafa am benn xale bi tudd Ousmane Thiam bindoon discours bu yaatu bu rafet bu am solo jëmale woon ko ci sëriñ bi waaye kilifa itam nag day am cër loolu moo tax dëgg yàlla ñuy koy ñaan rek mu jox sëriñ bi kayit bi moom dana ko jàngal boppam bu ko defee moom ñu jox ko kàddu gi bu ko defee sëriñ ورحمة الله وبركاته أحيي كل الحضور وحقا لقد قلتم وأحسنتم القول وعملتم وأبدعتم في العمل ولامستم شغاف قلبي فيما رأيت وسمعت من وجوه البر والإحسان طلبا وتوسلا إلى رضا الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا بركاته وأن يوفقنا إلى ما نصل به إلى رضاه الذي هو مطلب وغاية كل مسلم وغاية الذين حقا جاهدوا في الله حق جهاده حتى إجازهم الله بهذا الرعيل الطيب الحسن الذين يتكلمون ويحسنون فإذا تكلموا العربية أحسنوا فيها وإذا نطقوا بلغتهم المحلية أيضا أبهروا فيها وكل هذا دليل على أن حقا نحن لا ننسى آه، نماذجنا الذين وضعوا ما في هذا الطريق لأن الإنسان بلا نموذج ليس له مذهب يذهب إليه ولكن إنسان الذي يعلم أن له نموذجا ونموذج كامل المعاني مثل الشيخ مالك صو نحتفل به لولا وجود هذا النموذج ممكن سنصل إلى هذا المستوى ولكن ليس بهذه السرعة وبهذه الجودة آه، نشكركم كل الذين تكلموا نشكرهم آه، فيما آه، يحسنون ظن في أنني أمثل وأنني أمثل ولكن لست إلا عبدا من عباد الله الصالحين ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن الله يتولانا في كل ذلك ويوفقنا إلى ما نريد ظاهرا وباطنا شلا مات مشلا برافة سنو يتدي في طوير سنو يقوليك سنو يجيني مانغلين دي نيو مانغلين دي اندل نيو خليفة الشيخ مكيان مانغلين دي اندل نيو إمام الشيخ سيسي ak mbooleem wa merina ak seeni ñaan yal na yàlla may ñu li nga xam ñu fas jotaay bi yal nañu yàlla may loolu yal na ko yàlla dëggal ci ñun euh, Sénégal moo nekk nii mooy peuple yi ñuy gis nii mooy ñii di daje te buñ dajee ñoom ñëpp dañuy bëgg a fàttaliku leçon yi nga xam ne jàng nañ ko doon nañ ko ci seeni maam ndax nit ku amul repère pour mu jaar yoon bu dina jafe ci moo tax su fekkee ñu ñuy dajee di fàttaliku ne am nañ repères yoo xam ne repères yu ko mat lañ repères yu ko jar lañ repères yoo xam ne bàyyi nañ fi loo xam ne ku ci landaamu di nga am foo jëm repères yoo xam ne ku jàkk ku jàng ci seen ku ku jaar ci seen njàng di nga nekk nit koo xam ne nit ku mat sëkk nga nit nga koo xam ne fu la sa moroomu nit gisee dina xam ne te seen ak nit ah ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal te loolu yàlla may na ko sénégalais dëgg-dëgg ku taseeg moom ci àll bi di nga xam ne tase nag nit sawaawul Sénégal bi jógee ci daara ji ak Sénégal bi jógee ci école bi ñoom ñëpp yàlla may na leen yóbbal boo xam ne euh, boo taseeg ñoom di nga xam ne nii nit ñu am repère lañ nit ñu am fuñ bàyyeekoo lañ nit ñoo xam ne kenn sànniwu leen comme ni ma suma xarit boobu waxoon ci Dakar mu ne ma dama bugg nga gërëm sa baay yi parce que sa bàyyi sànniwu la mooy suñu bàyyi ñun ñëpp ñun ñëpp suñu bàyyee sànniwu ñu parce que suñu suñ bàyyee sànni woon am na jotaay yoo xam ne buñ ko jotaayoo itam dañuy jàng leneen loo xam ne bokkut teg dañu war a jàng mais ñu ngi jàng fii tey ci jotaay bi ne ñun ñii am nañu repère repère boo xam ne mat na ko repère boo xam ne mën na ko ci xam-xamam boo xam ne mën na ko ci volonté repère boo xam ne mën na ko ci mbëgg ci bëgg-bëgg repère boo xam ne am na lum bëgg pour ëllëg su ko dul fekkee itam ñi koy fekkee ëllëg dinañ xam ne kii lii bëggoon pour mbooloo mi lii bëggoon pour Sénégal gi lii bëggoon pour ruq bi te defe naa ñi fi wax ñëpp dinañ jéggale ne monsieur le maire monsieur le préfet wax nañ ne amuñ benn coono pour jëflante ak waa ruq bi amuñ benn jafe-jafe pour liggéeyanteeg ñoom ndax fekk nañ nit la ñoo xam ne moo ko waxal boppam nàmm nañ leen yar nañ leen nàmpal nañ leen ba nga xam ne li war a def la ñuy def donc bon am repère baax na baax na nit dafa war a am repère na mu rëj ah zakira taarixiya mémo mémoire historique nit daf ko war a am nit bu amul mémoire historique dëgg dégg dafay làmbatu rek waaye nag soo fekkee ne ñun am nañ ci suñu biir doxinu Sénégal bu mag gii ah la ko dalee Cheikh Omar Tar ba ci jotaayu tey bii seen ndox yëpp moo doon nañ préparé ëllëg génération boo xam ne danañ nekk ak seen jamono te dinañ nekk seen nawlo jamono boo nekkul sa nawle jamono doo ci def dara waaye bala ngaa nekk sa def ci sa biir jamono ala foog nga nekk sa nawle jamono suma nawle jamono sama jamono lu mu laaj mooy il faut ma nekk borom xam-xam il faut ma jàng ah ndax moom la jamono ji laaj jamono ji ku jàngut amoo xam-xam ñi am xam-xam dëggal la dem sa yoon moo tax al foog ma nekk sama nawle jamono il faut ma il faut ma jàng bu ma nekkee sama nawle jamono jàng al foog ma nekk nawle xam-xam boobu ma jàng xam-xam lu may jëriñ lan mooy xam-xam lu muy jëriñ mooy naa fexe jëriñ keneen ku dul man ci xam-xam bi naa fexe bàyyi ci sama taarix loo xam ne ëllëg nit ñi dañ ko jàpp repère pour jaar foofu ba nga xam ne fu nit mën a àgg nit mën na faa àgg fu nit mun a àgg mën na fa àgg boo demee tubaab yi européens yi boo demee ñoom ñëpp seen repères yi ñu am di leen màggal Molière euh, Jean-Jacques Rousseau et tout ça là ñoom ñëpp dañoo gis ne ay repères ñu ñëpp yem rek kenn tanewut kenn ci xel waaye nag ñun dañoo jàng mu ne ko waaye nag ñun dañoo jàng parce que boo xasee jàng am xam-xam am sa diplôme universitaire jeex na bu la kii soxlawut kii soxla la par force ndax xam-xam la ndax xam-xam la xam-xam wala jiite xam-xam ci ngay nekkee sa nawle jamono ci ngay mën a dëkk Sénégal dem ba Nations Unies di fa liggéey ci ngay mën a dëkkee Sénégal dem Amérique kuppi fa ay postu ci ngay mën a nekkee Sénégal dem France kuppi fa ay postu parce que du yow sa jëmm ji mais xam-xam bi la moo tax Cheikh Ibrahima mu ne na ngeen xam ne xam-xam mooy jiit ku am xam-xam di nga jiitu ku amul xam-xam nag na la wóor ne euh, lu lu tardé rek yaa ko tardé sa bopp oustaz ci sëriñ ak taalibe bi war a àndee sëriñ ak taalibe bi war a àndee mooy nit ñi ñëpp war a ànde parce que nit mën ta ñàkk njiit ah nit mën te ñàkk njiit il faut nga am ku la jiite ah nit yi ki lay jiite il nga topp ko sawa un lim la jiite lan la ah boo demee euh, musiciens yi am nañ seen maestro maestro hmm, moo leen di hmm, footballeurs yi am nañ seen capitaine euh, group bu nekk rek am nga sa capitaine boo xam ne moom ngay topp na koy toppee pour am ci moom bëgg àgg ci moom wala bën a def li muy def loolu rek la ñuy toppee seen itam ah dafa am topp yoo xam ne nag perte ma moo ciy bàyyeekoo am topp ma yoo xam ne njëriñ moo ciy bàyyeekoo parce que topp sëriñ topp nu la yoo xam ne war dañoo jaar ci seen yoon nga xam ne moom lañ doon jàngale pour àgg fi war a àgg pourtant ñun tamit am nañu repère yoo xam ne ëpp nañ Jacques Jacques Rousseau ëpp nañ Molière ëpp nañ ñeneen ñu du ñoom ah parce que Jacques Jacques Rousseau Molière ñoom ñëpp boo demee am nañ ci seen dundu loo xam ne euh, euh, kenn du ko wax ah waaye euh, Cheikh Malick mii ñuy jotil tey pour mu si repère amul ci dundam lu ñeme wut nettali amul ci dundam lu ñeme nettali amul ci dundam loo xam ne bu ko njabootam déggee sëgg seen nopp ruus amut donc bon suñu repères yi ñoo gën a mat seen repères yi dëgg la il est il est il est vrai que euh adina mo xew léegi euh, culture mo xew léegi occidentaux yi ñooñu moom ñooñu tiim ñooñu jàngal ñooñu yar donc toujours seen élève rek la ñuy doon Waye amna ño ñoo xam ne dañ nekk nekk seen élève xamnañ na encore je suis là encore Hein? maa ngi fii maa ngi nii kenn du man note yobuma, ma kenn du ma sanni. ah maam El Hadj Abdoulaye Niass kenn ci repères yi nga xam ne dañ koy jàpp bi xeexee tubaab yi ba tubaab yi gañe leen lum njëkk a wax mooy ni ñii xam-xam lañ ñu gañee xam-xam lañ ñu nootee donc bon nañ uti xam-xam buñ amee xam-xam dinañ fi génn te duñ xeex ñoom. donc yàgg naa xam xam-xam lu muy tekki xam-xam lu muy jëriñ boo bëggee nekk nekk nekk sa nawle jamono ala foog nga xam sa jamono. booy xam sa jamono munoo koo xam xamee ko ci xam-xam eh, eh, eh, xam-xam nag dafa bëri doonul ne xam-xam mi ngi génnee ci école bi rek wala mi ngi génnee ci daara ji rek xam-xam mi ngi génnee ci marché bi marché boo demee dañ fa fekk ba yoo xam ne boo demee dafay benn jàngoo da ngay fàttali li nga jàngoon ndax euh, tiim nañ la ëpp nañ la intelligence ëpp nañ la ñëw ëpp nañ laa xam jamono waaye lii seen erreur mooy bu ñu juumee duñ ko mën a jubanti bu ñu juumee duñ mën a jubanti ah bu ñu juumee xëy na bu ñu juumee police leen di jubanti wala leneen waaye loolu mooy njëriñu xam-xam boo juumee mën a jubbanti sa bopp ah boo juumee xam-xam jubbanti la boo juumee xam-xam ne la juum nga nii la nga nangu ne nii la bàyyi la nga jàppoon bu njëkk loolu la xam-xam di jëriñ loolu ngay nekkee sa nawle jamono boo nekkut sa nawle jamono da ngay ragal sa jamono boo ragalee sa jamono lu ñëw rek këf la nga dem loo ragalee sa jamono lu ñëw rek këf la nga dem kii moom a man kii moom a xam-xam kii moom a gën a jekku kii moom a gën a xam àddina kii moom a gën a xam nangam mais pourquoi nga di ko wax te nit nga moom ah pourquoi man tamit mënumaa àgg ci sama jamono pourquoi man tamit mënumaa dégg sama jamono pourquoi man tamit mënumaa influencé ci suma biir jamono ah loo xam ne dafay am njëriñ pour àddina xam-xam du pour tiitaloo xam-xam xam-xam du pour utee àddina xam-xam parce que xam-xam boo ko xasee am àddina topp na la neex na addina àddina u neexul àddina ram benn juif muy waxtaan ak benn borom benn arabe arabe bi ne ko mais yéen vous êtes très mu ne ko non nous ne sommes pas intelligents nous sommes comme tout le monde hein ko pour sama intérêt àddina mais dama ko topp pour yàlla donc yàlla nga topp mais topp sëriñ bi ah yàlla nga topp mais topp sëriñ bi kooku nga yàlla moomu nga topp nag euh, yàlla dafa dafa yaatu dafa rëy euh, dafa dafa dafa ëmb yëpp euh, nit ñëpp moo leen ëmb nit ñëpp moo leen ëmb ah mbindeef yëpp moo leen ëmb ëmb su ko defee mbindeef bu nekk nag yàlla forcé wu la ci sa bopp ne maa ngi nii xool ma mamel nii ah ah dafa laa bàyyee sa bopp ne la demal àddina ngoog yaa ko moom seetal ba xam yaa moom àddina wala moomoo ko ah yaay defar ci àddina wala defoo ci di nga dem ba nga xam ne àddina bi defuma ci waaye àddina bi am na leneen luy def ci moom di def ci man kooku mooy kan kooku mooy yàlla yàlla boobu nag nit ñëpp ci nekk am nga noo ko fiwee ah ñi ko fiwee euh, euh, ba euh, aate ya xam nga aate benn aate mu ne mu ne mu wax ak benn moroom mu jullitam ne ko man yàlla amut mu ne ko loolu maa la ko njëkk wax ah loolu benn étape la maa la ko njëkk wax maa la njëkk a wax laa ilaha maa la ko njëkk a wax laa ilaha maa la ko njëkk a wax ah parce que su ma gëmu diine li may njëkk a sant mooy waxal laa ilaha jeex na yàlla amut benn yàlla amut waaye alors mais nag boo amee ku jàpp ci sa loxo dina la indi nga agsi ci illaa illaa boo àggee ci illaa itam fu fay itam réer waayang fa am na ñu wax ne illa al masih jésus christ am na ñu wax ne illa bouddha am na ñu wax ne ainsi de suite illa illa illa illa waaye ña yàlla defal tawfiq nag ñooy àgg ci illa allah bu jeex takk nga mat sa nga nekk nit boo xam ne mat nga mais jaaruwaay yi ñooñu di jaar yëpp jaar nga ci parce que wax nga laa ilaha c'est fini jeex na wax nga illa ah illa réerukaay baa ngi foofu ah فما جم ده ما يوح إلا الله ولا ما يوح إلا الشمس إلا الخمر إلا البحر إلا بودا إلا إلا إلا إلا يب من في أبنا يوح من سرخ سرخ سرخ من وخلولو ها دانكو بون باتو لا إلا إلا الله بوبني يوح لب لي سخلا بولير بوبم ها بات بوبون كو أمبو بات بوبون كو أمبو في نيت دي جار يب دي يوح ويد دي الله نعم مك نعم يالله أموتك يالله كيرو يب romb nga ci wax nga laa ilaha illa ah bu ko defee yàlla xëcc na allah man man rek la keneen ku dul man du moom donc bon topp boobu ngay topp sëriñ bi pour romb laa ilaha illa dem ci allah loolu la ah boo demee nag ba àgg ci foofu dafa am topp yoo xam ne topp perte la doomu aadama daf koy perte daf ciy perte ah topp nit pour addina perte nga ko perte nga nit ki perte nga àddina parce que moomul àddina ma amu ko ah àddina itam dëgg-dëgg jarul toppee nit ndax àddina mag moom ñoo ko bokk ni mu def ba am ci dara mën naa góorgóorlu ba ki ko may itam may ma ma def ci dara ku nekk nag ak sa daraja ah wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaatin ku nekk ak sa daraja yow fii nga am li ngay am yow fii nga am li ngay am yow fii nga am li ngay am yow fii nga am li ngay am ah am na ñoo xam ne nag yàlla émalewu leen yàlla émalewu leen fenn ci boppam may naa leen lu dul sama yàlla gi may naa leen ko du ngeen yàlla man maay yàlla waaye lu dul loolu rek jël leen mu hmm? tax euh, am na ñoo xam ne topp leen te mooy sëriñ yooyu ngay wax ci la njëriñ di bàyyeekoo pour doom aadama ndax doom aadama bu fekkee amul lu koy yokk dafay wàññeeku boo amul lu la yokk rek yaa ngi wàññeeku am na yokk nag mooy lan ndax yokku àddina am àddina matérialisme noonu la loolu mooy yokku walla mooy yokku doomu aadama ci boppam yëg ci biiram ne moom waxul bokkuma yokku naa sax mais damay yokke ah comme góor gi ñu dajale góor gi ñu dajale tey fii yokku na yokku na waaye gis nga mu ngi yokkee ba léegi ndax yotaay bi ci yokkam ngoogu la bàyyee ko moo tax sëriñ si xam baat bi ñoom dañuy wax mëdët mëdët baat bu xóot la baat bu sori la baat bu tàlli la ci biir taarix mëdët foo koy jeexee rek mëdët ah mëdët mëdët mëdët mëdët dañoo xam li ñuy wax xam ni ñuy waxee ak yàlla yàlla di leen joxe niñ bëggee waaye boo xamul ni ngay waxee xamoo baat yi li muy tekki dangay ngay gaañ sa bopp ngay da ngay sànni sa bopp moo tax sëriñ topp ko pour mu la jubbanti ci baat yooyu jubbanti ci ruq yi loolu moo tax ñuy topp sëriñ boo toppee sëriñ nag man maa jël sama volonté bopp pour toppi ko maa ko jox sama bopp pour topp ko bu boobaa nag am na yoo xam ne amatoo droit ci sa bopp pour def ko du dul déggoog moom lu dul déggoo moom lu dul wax ak moom am na ci am na ci dinga nga àgg sa sëriñ foo xam ne bu fekkee yàlla ubbil na la bu baax nga xam di nga àgg di nga àgg ak moom foo xam ne vraiment da da ngay mel ni nit ku ñàkk nga amoo sëriñ bi rek moo am li muy wax rek mooy wax li muy santaane rek mooy jëf parce que foofu la njëriñ bi nekk man ba mu ñëwee ànd ak par exemple Youssou Ndour musicien la bu mag dama bëgg mu jàngal ma musique ah dama bëgg mu def ma nangam ak nangam ma ñëw mu ne ma voilà fii ngay commencé defal nii defal nii defal nii ma ah man lii xeet naa ko man mun naa àgg fu gën a kawe fii alors du ma dem moom itam dootuma jàngal bu ko defee ma géey ah du ma ñor waaye nag boo ñëwee ci kii lay jàngal ñuy dem école yëpp xam nañ ko seen professeur bu taxawee ci seen téye table téye crème taxaw ci kanam tableau yow élève bi nekkatoo fa table bi rek ak craie bi ak loxo professeur bi rek ngay gis ah? ndax euh, jeex nga yow comme comme comme un être waaye craie bi ak table bi ak loxo bi yëngatu ci biir table bi ak li ciy bàyyeekoo. bu boobaa loolu rek nga ah bu bëgg fay jógee nag ngay door a nekkaat leneen fàttaliku commencé fàttaliku la woon ca table ba lan la parce que repère ngoog repère moo lay jubbanti. motax serigne ci ay repère lañ dafa am lo xamne ñun addina bi yeb ñoko bok yàlla ñun ñëpp ko bok comme ni ko monsieur le professeur waxe xawma yàlla ñun ñëpp ko bok ken ken ëppelé wu ci ken ken ëppelé wu ci ken waye yàlla ci bopom nak mu ne am naa ñu ma tan am naa ñu ma tan pour man ha wa innahum indana la minal mustafayna al akhyar ah man naa leen topp ma maa leen tànn sama bopp ñu nekk sama soppe waaye man yàlla comme yàlla nag yéen ñi ma yéen ñi ma bind yëpp yéen a ma bokk ah, te du ma xañ kenn dara lu mu war a am gannaaw maa ko fi indi li mu war a am yëpp dinaa ko amal waaye duma ko xañ dara nangul na ma u na maa nangul kooku affaire am la moo koy moo koy moo ko moo mooy gis li ciy xew ah boo ma nangulee noonu la ah, firdaws la wax ne fa lay àgg ak yow boo ko nangul mu ne inna jahannama la bil mirsaad safaraa ngi fii toog di leen xaar waaye ci biir àddina nag lu la neex defal ah waaye paradoxe li xew nag mooy yàlla ci boppam bind la ne la man baarewuma la ah man shaa fal yuumin wa man shaa fal yakfur bu la neexee gëmal bu la neexee bul gëm kooku sa affaire la su ma yoon nekku ci ku gëm baax na alhamdulilah boppam la gëmal ku weddi itam boppam la weddil waaye li xew nag mooy ñi nga xam ne gëmuñ dañoo bugg a wax ñi gëmut ne leen bu leen gëm loo xam ne yàlla ay yàlla yàlla nangu na ko ñoom ñoo duñ ko nangu fokk bul gëm parce que li nga gëm du dëgg yàlla amut nangam ak nangam yonent amut yonent nekku fii euh, comme dumbali fakoli yonent amul yàlla mustafa ñu kenn diko yoni nangam ak nangam ak nangam wax yo xamne deug deug kenn xamul kenn xamul ki ban ruq la genné di wax ha ban ruq la genné di wax parce que àdduna bi ay ruq rek la ku nekk yaa ci ruq bo xamne diñ ca genné mais do genné loy wax bo genné loy wax. fii Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ah dugal nañu ci ruq waaye bañ génnee xam nañ li ñu wax ruq bi bi ñu dugal mooy lan mooy markazul fuhumi wal maani ah markazul fuhumi wal maani seetal loolu seetal centre boobu mu dugal la ci ah centre bu nee na compréhensif ak nga distingué ah nga comprendre li nga comprendre tam nga mën koo distingué ruq boobu la Cheikh Ahmad Tidiane dugal ba mu la ca génnee seetal loo ci li ci teg yëpp nag ah yëpp tegoo ci lu dul rek yàlla moo màgg yàlla moo kawe yàlla moo méngoo yàlla mooy lëwalu yàlla mooy laaxiru yàlla mooy zaahiru yàlla mooy baatinu jeex na eh, génn nga sa repère jëriñ ne la boo amatul repère doo am ku la dugal ci ruq boobu génn la am ñoo xam ne ñoo leen di dugal ci ay ruq di leen génne ruq yu raglu la ruq yu ñàng la ah euh, franquisme ruq bu ñàng la euh, euh, sabatéisme ruq bu ñàng la boo fa génn bu ñu la dugalee ci ruq boobu ba génne la dootoo nekk nit ah da ngay weddi weddi weddi lu nekk da nga koy matérialiser lu dul matériel rek amoo ko te malgré loolu yëpp nag terewul suñu dund quotidien yëpp c'est pas c'est pas c'est pas matériel vous voyez man maa ngi am confiance ci yow nga am confiance ci man ana confiance kenn gisu ko gisuñ ko mais am nga ko am naa ko maa ngi am cofeel ci yow yaa ngi am cofeel ci man ana cofeel kenn gisu ko mais dañuy gis li muy def ah confiance bi dañuy gis li muy def yaa ngi am mbañeel ci kii euh, ana mbañeel gisoo ko mais li muy def rek ngay gis donc bon ñu ngi wax matériel matériel mais am na yoo xam ne ba léegi li ngay dem di dem banque di fa dénk sa xaalis da ngaa óolu banque bi rek confiance la ana kóolute googu mu kenn gisu ko kenn mënu koo laal te yaa ngi koy dund bër bu set bëgg a wax ne nag leneen lu dul matérialisme matérialisme rek moo am leneen lu dul moom du dëgg doomu aadama comme tout comme toutes les choses yi nga xam ne ñoo am yëpp ay matériel rek la ay jëfandiku ay jëfandiku rek lañ ah bu doomu aadama tam jëfandiku rek la du dara moo moog moog mbooleem liñ bind ci kaw moo fi nekk su ko defee ñu lay dugal ci ruq boo xam ne boo génnee dootoo xam looy wax ah wala loo wax rek euh, euh, euh, voilà dafay ñàkk xorom dafay soof dafay patata xam nga depuis mille quatre cent wala depuis mille cinq cent ans mi ngi am ba léegi jullit yëpp ñu ay milliards ay millions yi millions yi nit ba léegi am nañ un milliard ak sept cent millions jullit ci àddina bi nga wax ko de léegi gëm ci mille cinq cent ans yi yëpp dara du ci dëgg amut ah vraiment lu doonu dëgg mënta dund mënta dund téeméeri at astama junne at astama junne at ak nangam te nam nam nañ nañ la ko doon waxee ba muy dund ba léegi dara soppeeku ci alif lam mim zalika alkitaabu kenn mënu koo soppi bu yonent ñëwoon moom rek lay waxaat alif lam mil zalikal kitaabu laa rayba fii bu ñëwoon loolu rek lay waxaat ah qul a'uudu bi rabbin naas bu yonent ñëwoon loolu rek lay waxaat du du passé foofu alors yow nga ne lii dama ko bëgg a effacé mais noo koy effacé noo noo koy effacé ah euh, vraiment euh, ruq bi nga dugal ba bu ci génnee xamatoo looy wax dañ la dugg ci franquisme dañ la dugg ci euh sabatees ah, sabatees ah, ah, mu ci ruq yooyu lañ la raxas la ba nga set wecc ba oh, wala boog lëndëmal la ba nga lëndëm tërës ñu door laa génn dugal la ci biir ni ñi ne la waxal ak waxal vraiment ah parce que amoo amoo amoo amoo repère amoo ku la préparé pour nga am repère mais kuy préparé ba mu am repère Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nga xam ne repère la ci suñu repère yi nee man bu ci sama talibé fu neex mu dem kenn ko dara fu neex na dem kenn ko dara parce que fi ñuy mënalee nit du du la ci ah loolu du mënal nit su fekkoon ne la ci doole loolu nit Sénégal du fi parce que français ils sont nañ noot indi chrétiens indi église bi ñu pour pour euh, soppi ñu waaye tey la fi l'islam tey la fi euh, xale yi juddu gën a nekk tey la fi yonent gën a siiw ah mbaar mi toog ñu toog nii tey bu ñu waxoon ne ñi ñu tuddee Muhammad yëpp nañ génn mbaar mi def naa kenn du fi des والله في ناس يتوت لي يدور تيتم محمد دين تدو نحتو بين بين تدي محمد تحيف د ها محمد تحيف د نكو كوفي كوفي كوفي كوفي كوين في تدي محمد جنال بارمي كوين في تدي خديجة ولا عائشة ولا فاطمة جنال بارمي بون يب تسارو د الو بن بن بن نت مو ام لولو شي ادنا بي ها بن نت مو ام لولو شي ادنا بي ها بن نت مو ام شي ادنا بي بو خيه bu bo bu jant bi so bu jant bi fenkee ba jant bi so ñaata yoon la ñuy répété turu Muhammad ci àddina bi àddina bi yëpp ñaata yoon la ñuy répété turam ci àddina bi loolu ku ko am ci taarix yëpp kenn amu ko yonent rek moo ko am parce que moo tax repère baax moo amul repère yooyu yëpp dañ la koy simplifier ah mais kenn mënut a simplifier ne fi nekk nii ñi ñu tuddee Muhammad ci àddina bi yëpp ولا محمد تاخ يو تودي لين تور يويا بوين غينون سي ادنا بي فراما ادنا بي دنا ويت ادنا بي دنا ويت تاتي ريبير دا فا باخ باسكو بو امول ريبير لو خيو سي ادنا بي دا فلا مونا تيتل ها مي بو امي ريبير بو خامني بو دغور لا كوم غور غي ني فاتول تاي تاجار نكو ناخ لي ديغ سي كوين بيك ني في واخ نيب ها فريمان ني واخ عرب واخ نانكو فاصون بو خامني بو عرب ني مانتا واخ لو بلولو ها خاصة في أكسجعهم بك كلام عالي رفيع ها أستاذ من تبلع ديسكورم كلام رفيع في اللغة العربية بو خمنا كن منو كو باسي بو أموتون ربير بولا دفل لولو amul benn arab bu jógee ci arab yi ñëw Sénégal pour jàngale si fi arab amut ah école français tubaab yi ñoo ñëw jàngal leen waaye ñun kenn jógewul ci réew arab yi ñëw na fi ñu jàngal si arab ah c'est tel Ah, ñu xeex ak moom xeex ak moom xeex ak moom ba am ay nit ñuy bàyyeekoo fii dem ci réewi arab yi leen jàngal arab arab yi ñëw ci suñu réew yi di fi jàng si arab ah parce que dañoo am repère boo amul repère da ngay réer repère bi mooy sëriñ ah sëriñ da koy topp pour ah, ah, wakkun bay na yeday cheikh ka kër mayit nekk mel ku benn mel ne ku dee ci kanamam ah su ko defee dee googu ngay dee ci kanamam ci la lay dekkal ah ci la lay dekkal bul déglu dekkal ku dee ah waxuma loolu mais ci lay dekkal ci sa ci lay dekkal nit ci yow ah ci lay dekkal nit ci yow nit koo xam ne dina mën a xame ndey yoram ak càmmoñam loolu ci sëriñ nga ko mën a amee mënoo ko amee ci yeneen yi ngay dégg yëpp yi ngay dégg yëpp dëgg la am na nekk na fi parce que ergonisme la seen yàlla seetaat na ko mu am ko jox na leen doole jox na leen maqaama jox na leen xam-xam yooyu yëpp defal na leen ko nekk leen feeg ñoom nu ngeen fii nekkeek ñoom nag mooy ni ma neex man yàlla nun ngeen fii nekkeek ñoom yonent yàlla Muhammad repère la ci suñu repère yi alxuraan repère la ci suñu repère yi alxuraan wax nañu ne mu ne ci diine mu ne yaxlu ala diini kullihi jàngal ma laaya bi diini kullihi li yuzhirahu ala diini kullihi sama diine diine bii ma la joxe yonent pour nga yóbbu ko diine boobu dina tiim diine yëpp dina tiim diine yi fi am yëpp évidemment loolu agsi nañ ci li yuzhirahu ala diini kulli loolu agsi nañ ci mais nuñ ci accès nag lu lu doy waar la lu doy waar la waaye fi nekk ni boo demee université àddina bi centre académique yi centre scientifique yi yëpp boo demee seen waxtaan mooy l'islam l'islam l'islam l'islam weddi naka lañ koy waxee naka lañ koy fi dinde xeexet waxatuñu lu dul l'islam fàtte nañ seen diine yi fàtte nañ seen yëpp problème bi yëpp mooy l'islam bii ah naka lan la naka lañ koy fexeeree ah ah loolu loolu loolu mooy seen wax li yuzhirahu ala diini kullihi fi mu nekk nii ci loolu lañ toll mi ngi feeñ ndax fi mu ne l'islam mooy waxtaanu addina bi yëpp sabaa am gëm nga ko wala nga bañ koo gëm donc bon boo amee repère lu nekk mën nga koo xam lu nekk mën nga koo dégg-dégg boo xam ne bu bu yomb la boo amul repère nag da ngay làmbatu dañ lay dugal ci ay ruq génne la nga génn dootoo xamante looy wax ген يلا أموت يننتو أخد دق القرآن دو دق تتجين كوي بشيري عربي بعض العرب أنفسهم يقولون مثل هذا الكلام ويتفوهون به ها لماذا لماذا لأنهم دخلوا في هذه الزوايا المظلمة وخرجوا من هذه الزوايا المظلمة أكثر ظلاما لندم بوش دوغي لندم رجاي جن بو دوغي سي لير سي لير مركز الفهوم والمعاني c'est foo jëmati markazul fuhumi wal maani jeex na yëpp euh, yàlla daf koy teewal sa kanam bu ko defee boo si génne wa nuuril akwaani c'est-à-dire boo génne markazul fuhumi wal maani looy njëkk a dégg wa nuuril akwaani leer ngay njëkk a jàkkaarloo hmm? bu ko defee nga gis ne lu am dëgg-dëgg lu mën a dimbale doomu aadama ci mu nekk doomu aadama bu am njëriñ ala fokk nga ànd ak ñoo xam ne yàlla daf leen a préparé pour ñu def njëriñ ci doomu aadama yi ñoom ñëpp mënul mënul mënul leen ko joxandoo mais dina jox ñii ñii itam mu joxee leen ci waa statut ñii ñii daf leen di jox jox leen ci waa statut ñii waaye euh, su fekkoon du loolu ku nekk yàlla ngi ànd ak yow ku nekk yàlla ngi nekk ak yow ku nekk yàlla ngi nekk ci sa xol ah waaye yàlla bi nekk ci sama xol nag naka laa koy comprendre sëriñ bi na la kay boo ñëwee dina la woon na koy comprendre na la woon na koy déggee ah parce que sa xol bi benn place bu nekk ci biir la kenn mënu koo gis ah waaye nag li muy génne nit ñi mën nañ ko gis comme ni ma ko waxee sànq am naa confiance ci yow confiance gisuma ko mais li ngay li koy jëmmal mooy jëflante bi ci lay xame ci la nga xamee ne am nañ lu ñu tuddee confiance moo ñuy luyee maag yow ah waaye confiance kenn gisu ko naka noonu itam baat yooyu ngay yàgg ci biir alxuraan te xamoo ko dafa am ñoo xam ne boo demee ci ñoom dañ la koy génneel ba nga jàkkaarloog moom ba mel ni nekkatu sax baatin waaye léegi zahir la parce que ñu ngi wax baatin zahir wal baatin mais dëgg-dëgg zahir rek moo am ah ci dégg dëgg parce que lu nekk bu zaahirul rek doo ko mën a xam ah moo tax al al al awalu wal axiru bi mu jëkk wax wa zaahiru la njëkk wax parce que zaahir yëpp ci la ci la ñëpp jëm wal baatinu door a ñëw al baatinu nag mooy ruq ba nga xam ne kenn mënu la faa dugal du dul repère boo xam ne mat na ko markazil fuhumi wal maani saaxibu markazil fuhumi wal maani moo la mën a dugal ci ruqu baatin boobu nga xam ne moom la yàlla wax ñu génn ci nekk ñi ñoo xam ne adduna bi yëpp am ci yow soxla adduna bi yëpp ngay jëriñ jël leen topp sëriñ lu war la yaru ci kanamam lu war la topp sëriñ lu baax la lu am njëriñ la pour doomu aadama dëgg la charia sant la ko charia sant la ko bu demee suñ boroom àlluwa yu ndaw yi di wax naan ñoom ay salafi ne lañ jànguñ jànguñ wala buñ jàngee itam voilà dañuy naaw ci kaw nii rek xam-xam leer la comme lu pàllup bu ñëw rek gis na lampe bi mu leer mu ñëw di lupp lupp ci kanamam waaye xamut ci leer bi dara ñoom noonu lañ mel ah, parce que parce que taarix yëpp mais jeex na yow yaay kan yaay kan yaay kan ba di ma atte yow yaay kan ba di ma atte yaay kan pour atte samay acte ku la ku la délégué ah kenn délégué wu la ah kenn délégué wu la kenn kenn kenn waxu la demal wax nit ñi ne leen nekku leen ci de kenn kenn sant la ko ah yàlla lim sant julli ñëpp la ko sant aminu billahi wa rasulihi wal kitaabi alladi anzal ah loolu la yàlla sant julli ñi ci la mën a ommat ci loolu iman billahi wa bi rasulihi wa bil kitaabi allazi anzala ki lay ommat ci yooyu kooku moo jar a àndat hmm? nu mu la ci mën a ommatee rek sëriñ bi wax na ko léegi eh, ci gannaaw da nga daan dégg ñu ne gàmmu bidaa la léegi boo demee ñi daan wax gàmmu bidaa la fu mu daan jógee Arabie Saoudite ñoom ñoo gàmmu daaw ak ren yëpp dañoo gàmmu hmm? ñoom ci seen bopp daan wax naan tiyaan yi dañoo réer duñ ay jullit ñoom ci seen bopp ci seen biir Arabie Saoudite léegi boo demee fekk leen ñoom ci seen gese ñu ngi ñu ngi sànniwante yow yaay effet Mouhamad Abdou Wahab boobu nga xam ne mooy wahabiye boo demee ñu ne musiba àddina bi yëpp moom moom moo ko fi taal ah ndax leen yu jafe yii yu tëy yi moo indi euh, rayante bi julli ñuy rayante seen biir yëpp Mouhamad Abdou Wahab moo ko fi indi bon moom di jullit ñu ngi koy wax ñoom seen bopp ñoom ñi daan effortloo nit ñi ndax Mouhamad Abdou Wahab Mouhamad Abdou Wahab léegi yéefar la ah te ñun liñ nekkoon ah tey la ko nit ñi gën a bëgg tey la ko nit ñi di gën a ñaan ñu arabi arabi saoudite ñi mën a daw génn ñi ngi daw di génn di ñëw ci ruqu ruqu seen yii ah markasul fuhumi wal maani pour xeeñtu fi dara loo xam ne danañ ci génnee nekk yeneen nit ñoo xam ne dañuy liggéey dañuy defar <coughs> am xam-xam am alal te bu doo def dara ci àddina bi mooy ne am na lu la baare te li la baare du biti li la baare ci biir la ah li la baare ci biir la réewu arab yi li ñu am ci alal ak borom xam-xam yi nekk seen biir ni ñu bëree te mënuñoo def dara ci àddina bi ah mënuñoo mënuñoo mënuñoo def dara ci àddina bi ah donc bon am na lu leen baare li leen baare mooy lan mooy amuñu repère parce que jàng alxuraan ak baat bu neex rek du alxuraan loolu baat bu neex la ah waaye jàng alquran mooy war a tiilal quraan tartiilan bàyyi ko muy toq ndànk ci sa xol toq toq toq toq toq toq toq waaye ba nga xam ne yaa ngi téye kaamil bi di jàng da koy bëgg a tëj daw nga koy bëgg a tëj daw waaye <coughs> euh, loolu mooy jàngal xuraan أستاذ جانجة حديث برينيتي جانجة القرآن يوخمنا لا يتجاوزوا خلقومهم فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية واي لين جانجة القرآن تلي وخيب سن تاسو سن بودي بروخي نيويو بوين لين جيسي وقتو لين وقتو لين لين باسكو اي سيطان لين يوخمنا dañuy sàngoo alxuraan pour réeral nit ñi dëgg la mu ngi am da ngay dégg alxuraan du dëgg du dëgg booy boy booy jàng alxuraan ba alxuraan di la jooyloo vraiment doo sa bët yi rek mooy sotti doo xam sax ndax yaa ngi jooyam déet mais see yëpp ay jooy jooy bu àndut ak yëngatu ah jooy bu àndut ak yuuxu selon ko yaa ngi génn voilà yaa ngi noonu yàgg al yaa ngi noonu yàgg alxuraan ah waaye boo amul repère doo am ku la jàngal loolu ah biddaa biddaa bi bi bi laay amul xam-xam jànguñu jànguñu ah mokkal naa benn aaya mokkal naa benn xadis rek. vraiment du xam-xam xam-xam dafa xóot gis nga ku ku ku borom xam-xam moo gën a ragal xam-xam te moo ko gën a ñàkk itam moo gën a moo gën a ragal responsabilité yow da am xam-xam ñemewu ko parce que boo xamee boo amee xam-xam benn melentaan bu ndaw nga ci biir ci biir àddina xam-xam melentaan boo gën a tuuti melentaan melentaan bu ndaw nga ci biir àddina xam-xam waaw yow melentaan bu ndaw fam benn sëriñ boo xam ne sëriñ bu kii la am jàng na évidemment jàng na yéen ñëpp jàng rëy rëy rëy rëy ba nga xam ne rëy ci boppam ndax boroom xam-xam la benn waaye di ko xool ba mu yàgg ñëw mu ne ko waaw sa xam-xam bii nga am nii lu mel ci xam-xam yàlla bi mu ne ko mi ngi mel ni benn benn picc bu ñëw rek cop ci ndox mi benn picc bu ñëw cop ci géej gi ah mu ne ko noonu la noonu la noonu la xam ni ñëpp mel ci yàlla mu ne ko waaw mu ne ko yow sawal la ci ci cop boobu nu mu toll <laughs> sawal la ci cop boobu yow nu mu toll <laughs> alors danga ko xam-xam bi pour euh, xam-xam pour njëriñ la ah xam-xam pour njëriñ la boo xamee ne xam-xam pour njëriñ la gis nga nit ñi dëkkoon ko aussi ci jamono booba jamono Cheikh Ibrahim dëkk Ngeer dëkk Njaago Juldi Xaar dëkk Taïba Niassène dëkk fu nekk demal ci àddina bi yëpp boo demee fekk leen fa ñu am njëriñ mhm. ah? demal Amérique boo demee fekk leen fa demal Australie boo demee fekk leen fa demal Chine boo demee fekk leen fa seen njëriñ àgg na foofu yëpp ah donc loolu mooy xam-xam loolu mooy xam-xam ah? te baayam bàyyi alaaj bàyyi bàyyi Cheikh Ibrahim moo wax ne tubaab yii xam-xam lañ ñu nootee nañ uti xam-xam buñ amee xam-xam danañ génn te duñu xeex ak ñoom ah man nag tànn naa xam-xam boo xam ne dama si jëriñu si àddina ak àllaaxira mooy xam-xamu arabiya wa diin wa nangam ak nangam ak nangam waaye ñu dem leen jàgg yeneen lu leen neex ah loo xam ne da ngeen ci mën a nekk ay borom xam-xam yoo xam ne àddina bi yëpp bu ngeen toog ak ñoom ñu xam ne ay nawle ñoo toog ak ñoom ñoo toog ak ñoom ah loolu boo boo amul repère repère dégg ko ne mooy sëriñ ah sëriñ bu ko mat sëriñ bu ko xam ci ci léppam ci xam-xamam ci jikkoom ci soppandikoom ci cofeelam ci cofeelam euh, euh, parce que lu nekk rek mu ngi tabaxu ci kaw mbugg ci kaw buggeel ah boo buggul rek boo boo boo buggul li ngay def rek amoo ci dara amoo ci benn chef moo tax yàlla mu ne la allaka baaxiun nafsaka an laa yakunu muminin in nasha nunazil alayhim min alsamaai ayatan fa dallat anaaquhum laha xaadiin bu ma neexoon ñoom ñëpp ñu topp ma bu ma neexoon ñoom ñëpp ñu topp ma mais man bugguma ku ma toppee force dama bëgg ku ma toppee ndax dëgg maa bëgg dama bëgg ku ma topp ndax dëgg maa bëgg in kuntum tuhibbuuna allah si إن كنتم تحبون الله ها pour nga xamne am am njëriñ am am sëriñ am na njëriñ bu ngeen bëggee yàlla top leen yonent yàlla Muhammad ni pour mu àggali le pour yàlla bëgg leen fa tabi'uni yuhibbukumullah sëriñ fa saw loolu moy sëriñ in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhibbukumullah ah foofu mooy wax bi wa e yàlla bëggul par force nga gëm ma par force nga topp ma loolu yàlla bëggu ko yàlla dafa bëgg nee na dafa bëgg nga bëggu ko mm-hmm. ah parce que moom bi ñuy amal bëgguñu moo tax moo amal ñu kuntu kanzan maxfiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa xalaqtu xalqi ma bëgg ñu xam ma moo tax ma bind leen donc mbëggeel mooy cosaanu développement wu nit boo bëggee sa réew di nga ko bëgg a développé ah boo bëggee sa sa population di leen bëgg dimbale ba gis leen ëllëg ñu nekk ay population yoo xam ne modèle lañ ah boo bëggee sa daara di nga dundal sa daara boo bëggee xam-xam di nga dundal xam-xam waaye loolu yëpp boo ko def rek parce que je suis obligé def moo ko par euh, suma tànneef def moo ko par suma mbëggeel vraiment da nga ciy sonn rek mais mbaba daara rek ngay doon ah su fekkee ci daara yëpp mbaba daara ngay doon fekkee si école ba leneen ngay doon lu kenn xamut ah donc bon yàlla nañu yàlla yal nañu yàlla gën a takk ak suñu repères yii ah, ba nga xam ne dina jëriñu ci ñoom njëriñ boo xam ne ni fi seen njëriñ desee njëriñ bi yal nañ ko mën a toxal ci jiit yi ñëw si yal na yàlla barkeel suñu senegal ah yal na yàlla yëkkati suñu Sénégal euh, gis ngeen ñi ñi fi représenté euh, nguur gi hmm? gis ngeen ñoom ñëpp ku ci tàmbali sa wax yaa ngi koy tàmbalee aouzu billahi min cheytaan rajim bisimilah rahmaani rahim ah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم bu njëriñ européen yooyu ak siwutoon école laïque mënta génne xale yu waxee noonu ah parce que laï laïcité auzubillah ruq la boo xam ne bu ñu ca dugalee nit boo génnee dootoo nekk nit moom tamit ah ruq la boo xam ne boo ca génnee dootoo nekk nit waaye Euh, ak noonu euh, la démocratie euh, di libéraux libéraux ak laïcité ah ñooy seytaane jamono ji ah ñooy seytaane jamono ji wante nag lu nekk nekk seytaane alxuraan a ngi fi ak leeram ak barkeem yal ko yàlla wàcc ci ñun yal na yàlla dëgëral leen may leen ubbeeku yombal seen liggéey ci seen loxo yal na yàlla may leen li ngeen bëgg ci Sénégal ba tax ngeen volonté wu liggéey liggéeyal ko yal na ci seen xol sedd yal na ngeen gis population bu gee population bu ay yëppam lésé aisé ah ñu am añ am reer am ndékki ah, am école Euh, am yoon ah euh, mën a tukki loolu yëpp yal na yàlla dimbal leen ngeen mun ko defar seen population maa ngi dégg sànq benn xale buy jàngale mu ne état état mooy lan ah état mooy euh, nit ki soxlaam non loolu du état ah état symbole la mais ñii jëmmal état ñooñu ñooy ah, ñooy génne doole état ak ñàkk génne doole état mais état du du jëmm ju ñuy dox ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam euh, code la méthode la symbole la ah symbole la boo xam ne ñun ñëpp ñu ci suuf waaye ñun ñëpp nag ñoo mën a omat état bi il faut benn groupe koy omat ah groupe boobu di ko omat yàlla boole na leen ci xel yàlla dimbalee leen ba Sénégal euh, gis ci yéen euh, vraiment bëgg Sénégalam fonk Sénégalam Sénégal mën naa am lu nekk monsieur le maire monsieur le préfet Euh, suñ amee loxo yu leen jàppale ci dégg suuf si mën naa jox Sénégal lu nekk mbay euh, réew mu demut ci mbay du développé ah développement yëpp ci kaw mbay la taxaw te am nañ suuf yoo xam ne vraiment lu nekk am na Sénégal waaye lenn manqué Sénégal moo bëri nit ku tayal moo am Sénégal nit ku tayal bëgg àgg ci teraanga te euh, pexe pexe pexe pexe rek moo la koy may yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ubbi ay ay ay ay institut ay jàngalekaay yoo xam ne nouveau génération bi di màgg si bu leen bàyyi ñu màggee noona bàyyi leen ñu màggee yeneen gis gisuwaay ah ñu am ñu am conviction ñu am idéologie patriotique ñu am ñu am ñu am ñu am te bu boobaa la ñuy mën a tabax Sénégal mais feeg génération bu tayal bi génnewuñ ko ci tayalam génération ma euh, euh, génération jafe naa monsieur euh, le préfet da ngay gis benn jeune trente ans ña papa dama may lu ma jëndee ataaya mais c'est trop ah te dina am lu ma une semaine du am mille francs mais looy préparé foofu agresseur ngay préparé ah ainsi de suite donc il faut gaaw gaaw gaaw ah pour ñun ñëpp ñu ànd pour Sénégal yàlla yëkkati ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi illallah barhama barhama mu waral barhama mu waral barama yaa waral lii ñas barama moo waral lii la li yàlla la li yàlla la barhama barhama barhama yaa waral barhama